waa baamtuwaat na ko fii ngir ñu jege yàlla ngir ñu mën a tudde yàlla waxtu wu ne nañu sàlloo di jëfandikoo lu dagan di jox suñu suñu njaboot ndax sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa waxoon na ne kat ah bépp yaram boo xam ne mu ngay sax di sekki di màgg ci lu araam nee ne bu boobaa yaram woowu day ah sawara moo gën a yey ci yaram woowu loolu lenn la ci dénkaani Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam ci tënk lool ndax ci faram fàcc buñ ci duggoon kon yaakaar naa ne ngoon la ñu jëm ndax li mu wax lépp alxuraan la sunna la démb buñ ciy wax mën nañ ci wax ay bés yu baree baree baree bari ndax loolu moo di yoneen sallallahu alayhi wa sallam kàddu ya gàtt na maanaaya yaatu na waaye waxtu wi moo xat allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin al mahdi alayhi salaatu wa salaam bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala wa taala boroom bi nga xamee ne moonu may ñu dajalewaat ñu fii di fi julliwaat di ko màggal ak di ko sàbbaa ci bés yu tedd yi nga xamee ne ci bési yàlla yi gën a màgg la ci màndarga yi diine yi gën a màgg la yàlla sunu borom moomu mooy ki yeyoo cant mooy ki yoo ñu ragal ka ndax moom subhaanahu wa moom dong nga fi ne amul kenn kenn kudul moom koo xamee ne man ngaa def mbaa ngay ala saa yu nekk ñu di ko fàttali jullit ñi ngir ñu moytu bokkaale ndax bokkaale musiba la moo xamee kenn du ko duggaale ajjana kenn mënu ko kenn mënulaa dugal ajjana feet melokaan woowu mu ngi ci yow sama borom ba julla jalla waala wax na ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru maa duna zalika liman yasha yàlla day nee ni du jéggale ñu di ko bokkaale kenn mbaa len kooka nag lu mu mën a toll doonte day gën ji mbindéef doonte malaaka la walla ku mu mën a doon yàlla mayewul ngay dendal kenn ak moom boo ko defee nag ba dee ca sa tuuboo tuub gu laab ginnaaw sawara mooy sa wax na ca làmmañ yoon ci yàlla isa alayhi salaatu wasalaam ca alquran innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna naka luy mbir tey mbir képp koo xam ne da ngay bokkaale yàlla ak mbindeef nee na yàlla araamal na ci yow ajjana maa xam na loolu tey nag bokkaale daanaka tey boo ko deful jàppa nga ne ah, sa daraja dafa wàññeeku wala sa daraja yi sëriñ dafa wàññeeku bariyaa na tey ci jullit ñi ñoo xam ne ñu ngi ci loolu ngir yëg ci seeni sëriñ ak yëg ci seen yaakaar waaye nag dañu xamul ne suñu boroom li ma la wax rek mit manul màgg ci kanamam ba ñu di la dendaleeg moom mu di ko nangu te du ko digle wala yamurakum an tattaxidu almalaikata wannabiyina arbaba a yamurukum bil kufri baada is antum muslimin nee na duma leen mës a ngeen jàppe sama malaaka yi li ñuy sell sell yonente yi li ñuy sell sell ngeen di leen jàppe ay yàlla nee ne du ma ko digal kenn nee ne bu ma leen ko digalee mu ngi mel ni dama leen di digal ngeen dooni yéefar ginnaaw bi ngeen doonee jullit maanaam ngeen murtat kon nañ ca xame noonu tey nag daanaka mu ngi fës lool ci sunu biir te nag kuy bokkaaleeg yàlla boo jullee yàqu na boo ooree yàqu na loo mën a def ci xeeti jaamu yàlla yàqu na allaaxira bu ñu demee sama borom ba nee na wa qadimna ila ma amilu min amal fa jaalnaahu habaan mansuura la ñu jëfoon ci lu baax lépp yàlla suñu borom ba daanaka rek mu ngi mel ni rek ngelaw loo euh, maanaam euh, pënd boo jéeri def li mu def kon nag nañu ko moytu bu baax a baax mbokki jullit yi suñu julli gi tey bokkul ak suñu julli gëlëweese loolu mooy sunna sama borom ci kaw suuf ndax dafa tombe ak ñu nekk ci biir ay nattu ak balaa boo xam ne wàcc na ci àddina ñun ñëpp ñu xam ko muy feebar bii nga xam ne moo ki nekk te day bu ñu sañoon ñiy wax ci diine gën a bari lu ñuy delloo nit ñi ci yàlla ci feebar bii waruñu woon a am beneen bunt bu ñuy wax ci jamono ji ñu toll lu dul ci bunt bii ngir bunt bii tey am na solo am solo goo xam ne daanaka tey li ñuy tax ñu génn ci musiba mu mel nii bokk ca di toroxlul yàlla di ñaan yàlla di nangu sunuy bàkkaar di istixfaar di tudde yàlla lu bari taxoo ñaan nag te bañ a tàyyi taxoo ñaan te bañ a lott ndax ñaan noonu la doo ñaan tey rek gis ko suba déedéet du noonu kon nag gis nañu ñi taxawoon di woote naan nañu ubbi nañu ubbi nañu ubbi ndax dañu bëgg a ñaan dañu mel na ni ñëpp daw dañ kenn ñaanatul lu tax ñoom gis nañu ne feebar bi ni mu tëdd mu ngi mel ni luy yokk loola du ci dara li yàlla wax mooy am ba kera fam ko yemale moo ko fay yemale du tere nga ñaan yàlla dégg na sag ñaan mën naa nangu sag ñaan waaye itam sag ñaan du soppi kàddoom kàddug yàlla du soppee maa yubaddalu l la laday wa maa ana bi zallaamin lil abiid sama kàddu du soppee ñaan leen loolu moo leen war man maay nangu maay xool ci gën ak anam laay nangoo man yàlla yàlla moo moom tànn wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar yàllaay tànn mooy bind lu ko soob mooy tànn lu ko soobi kon ñun duñu tànn ñun amuñu lu ñuy tànn maa kaana lahumul xiyar amuñu dara lu ñuy tànn li nu war mooy ñuy ñaan di ko jaamoo yàlla balaa nag du jóge ci àddina saa yu ne yàlla mu ngi wàccee balaa moo xam balaa bu neex la moo xam balaa bu naqari la ñun nag balaa liñ ci xam mooy bi neex ay temps boroom sédd na la balaa ñaar waxoon nañ ko fii bii paase wa nabluhum bi sharri wal xayri fitna kon nag dama leen euh, nattoo ci balaa yiw nattoo leen ci balaa boo xam ne aw ay lay doon bu njëkk bi nag moo gën a naqaree jàll ndax bariyaana doomu aadama bu ko yàlla nattoo xéewal ak dal mu fàtte yàlla wa ida anamna ala al insani arada wa naa bi jaanibi wa ida massahu char fa zu duain arid kon doomu aadama buñ ko nattoo rek jox ko xéewal mu dummóoyu yàlla waaye nag buñ ko nattoo beneen nattu bi ah mu dal di commencé yëkki ay loxoom di ñaan du noonu jaam bi mu ngi ci diggante xéewal ak naqar fu ci nekk fu ne dafa aajowoo di ñaan boroomam subhaanahu wa taala bu nekkee ci xéewal war naa di ñaan yàlla otul ko xéewal yooyu te xiir ka mu di ko jëfandikoo ci anam goo xam ne yàlla gërëm na ko bu nekkee ci aw ay na ñaan yàlla teggil ka ko te may ko xolab muñ ko mu gañe ca yoolab ku muñ kon loolu mooy jullit bi looloo sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ajaban li amrul mumin inna amrahu kullahu xayr in asaabathu sarraau shakara fa kaana xayran la wa in asaabathu darraau sabara fa kaana xayran la nee na man di yéemu naa ci bi daal mbiram lépp yiw bu nekke ci xéewal day sant mu doon lu gën ci moom ndax yàlla da koy dolli la in shakartum la azidannakum bu nekkee itam ci sofaan ay naqar ak i balaa day muñ lool a gën ci moom innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab kon nag nattu yàlla ci boppam moom la ñu nekk nanu ko muñ li ñu ci war mooy ñi nga xamee ne ñoo nekk ci anam ak gëstu ci xam-xam li nga xamee ne mooy xam-xam bay faj ñu continuer di def loolu ñii ñaan di ñaan bu yàlla nangoo seen ak ñaan dina wane li koy li koy faj dina ko génn ñii ñaan fii bu leen yàlla lee dina ma sa ñëw mu feeñal li nga xam ne mooy garab googu dañ jële ci jaabir ibnu abdillahi radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne li kulli daa in fa ida usiba dawa u daa i bara nee ne nag seebar bu nekk am na am na saafara nee na bu ñu demee ba daje ak saafaraam dal di koy jëfandikoo mu wér waaye nag bi iznillah waaye nag bi iznillah subhaanahu wa taala ibnu Mas'ud waxaat ne inna allaha anzala daa wa anzala dawaa inna allaha azza wa jal anzala daa wa anzala dawaa mu ne alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila yàlla moo wàccee feebar waaye moo wàccee saafara ña koy xam xamal na leen ko walla boog xam nañu ko ña koy réere réere nañu ko yàlla ci boppam mooy xamle loolu waaye ñun sunu wàlla mooy ñu bañ a teggi suñu loxo mbokki jullit si te li ñu seetlu mooy teggi nañ suñu loxo boo gisee ma tàmbalee ci waxi sayyidina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam ngir jëfandikoo lu teey jëm ci ak ñaan moo taxoon jëm ci ak ñaan moo taxoon ndax balaa yi ñu nekk balaa nag buñ si nekkee dañuy fàttaliku balaa yi nga xamee ne moom la yàlla tegoon nit ñu baax ñi yonnentaam yu kawe yi ndax nit ñi ñaati ñaari catégorie lañ boroom maxaama yu kawe yi muy yonnente yooyu alayhimu salaatu wassalaam ak ña jaar seeni yoon catégorie ga ca def mooy ñu mel ni ñun ñi nga xamee ne ñu ngi sàlloo di sàggan di def ay bàkkaar ak di def ay njuumte ñooñu itam ak seeni balaa yonente yooyu nag seeni balaa xikma ya ca ne maanaam njariñ yañ cay séenu mooy nit ñi xam ne yonente yooyu duñu ay yàlla ku ci yàlla teg musiba di nga xam ne kii du yàlla kon kenn du ko dendaleeg yàlla ñu bañ leen jàppe ay yàlla looloo tax ñuy feebar di am ay tolof tolof di am ay nattu di am lu ne ci ay xeeti metit ndax lan ngir ñépp xam ne ñooñu duñu ay yàlla ñaareel bi ngir yàlla yéegi seeni martaba ca moom ak ca aljana yu kawe ya loolu itam ci xikam yi la kazalika naka noonu ngir ñu roy ci yonente yooyu nañu jëflante woon ak nattu yooyale nañu doon muñe nattu yooya ñun itam ñu jaar ak ñoom bu ñu nattu dalee ñu mel ni ñoom ñun nag sunuy balaa càggante moo ko indi ak i bàkkaar waaye lay xikma yàlla di ñu ko teg mooy raxasal ñu bàkkaar yooyu lu mu mitti mitti day dindi bàkkaar yooyu lu mu mitti mitti day day sippi say musiba yooyu ak say balaa yooyu léeg-léeg yàlla soppil la ko aw yiw ci xeeti natt yu bari yam lay teg bu fekkee ne nag muñ nga kon bu ñu waxee balaa ci yonent dañuy fàttaliku Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam mi nga xamee ne yàlla tegoon naka balaa bu rëy ay balaa yu bari sax def moom dafa dajale ay balaa yu bari comme yonente tey te benn bu ci nekk nun ñëpp buñ ñu boole woon duñ ko antal bokk na ci ba sa gën a metti balaa bi nga xamee ne tey moo wàcc woon ci moom ginnaaw bi mu dundee ay at yu soree soree ba mage lool di ñaan yàlla doom yàlla may ko doom aha mu gis doom jooju doom ja dem bay dëgër ba dëgër yàlla ne ko rendi kon boobu balaa metti na kenn du ko rendi yow yaa koy rendil sa bopp kon loolu defe naa ne balaa dootu gën a rëy ah balaa bu mel noonu itam yàlla séddale ko ko moom ak doomam ñoom ñaar ñëpp ñu nangu balaa boobule ñoom ñaar ñëpp ñu nangu balaa boobule ndax moom maam Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ba mu waxee doomam yaa bunayya inni ara fi lmanaami anni asbaxuk fanzur maa zaa tara qaala yaa abati faal maa tu'mar satajiduni insha allahu min assabirin defe naa ne loolu sunu xale yi xel xalaatul ñu di ñu ko defal xel xalaatul loolu sax yàlla dañu ko sul sas ndax xam ne moo loolu moom kuñ ko saf ci ñu nit nga daanu loolu yonent moo ko antan ak ñuy jéem a roy ci yonent bàyyi ba doom ja kon nag xissa boobu defal li ñu la digal neew ko defal li nga gént ndax xam na ne gént ak yonente yi loolu wax yu la waaw satajiduni insha allahu min assabirin di nga ma fekk dem soob na yàlla ma bokk ci wëy muñ yi waaw kon nag ñoom ñaar yëpp ba ñu jébbalooyee seen boroom def la mu digle waaw nga xamee ne maam ibrahim alayhi salaatu wasalaam ba mu tëree doom ja di ko rendi fa lamma aslama wa tallahu aljabiin wa naadaynaahu an yaa ibrahim qad saddaqta ruya inna ko rendi te xam ngeen ne daf ko dëpp waaw ngir yërmande mënul jàkkaarloo ak moom ba mu ko rendee la ko yàlla suñu borom ba mu ko jógee ngir rendi ka la borom ba subhanahu wa taala di koy woo joowoor ka xamal ka ne dëggal nga la nga gisoon waaw ak saddaqtu ruya inna kadalika min fil muhsinin waaw dem na ba ci biir dal di wax ne inna hada la huwa albalaa almubin lii daal mooy balaa bi gën a bir gën a leer ci balaa yi waaw waaye ni ko fa day naahu bi zibhin azim gis nga yàlla boo ko toppee rek def lu naqari rek mu weccee la loo xam ne aaxa moo gën a neex loolu yàlla wottee ka zibhin azim muy li nga xamee ne kuy mu mag mu mën a rendi mu remplacer ki nga xam ne mooy doomam jooju li ma waxoon ne balaa yooy bokk na ci njariñ yi ñu roy leen sa loolu moo continuer di woy ba wàcc si suñu diine ji ci yon si yàlla Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yàlla yoonalaat ko ci moom ñu di ci roy maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam yoonal ka itam ci sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam inna aataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al abtar saar woowu loolu moo ko wàcce waaw sama borom ba mu ngi ko ciy tudda yàlla mi ko baaxe déegub kawsara moom moo ko digal mu jullil boroomam boroomam qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya mamaati lillahi rabbil alamin wan xar mu loj ngir boroomam lillahi qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya mamaati lillahi rabbil alamin na wax ne sama julli sama rendi sama dund sama dee lépp yàlla dong laa koy defal amul bokkaale kon nag loolu yoonal ko sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam rendil na boppam ñaari kuuy ci loxam lu tedda dal di wax ne bismillahi wallahu akbar dal di ne allahumma haadi an muhammadin wa ummatihi ci beneen riwaaya an muhammadin wa ahli baytihi ba ca des wa ummatihi maanaam yonent bi rendi na wax ne yow sama boroom lii day maa ngi koy yéeneel sama bopp ak ñiy tabaskiwul sama xeet beneen ba mu ne bii maa ngi koy man ak sama njaboot bii li des ci sama xeet ku tamay yawmal qiyaama kon da mbokki jullit yi balaa foofu daal ala kulli xaal mënuñ koo génn waa léegi nag nu ñuy def ba génn ci balaa bi mooy ñaan ñaan nag yàlla moo nu ko digal te ku ko def yaa ngi ci topp yàlla yàlla dalay yool moo xam gis nga li ngay ñaan wala gisoo li ngay ñaan wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin sama boroom nee ne seen boroom nee ne na ngeen ma ñaan ma may leen mu ne ñi nga xamee ne dañuy rëy rëylu an ibadati si ñaan ma gis nga mu tudde ko ak jaamu mu jël place ñaan teg fa jaamu an ibadati mu ne na jahannama dinañ dugg jahannama daaxirin di way torox kon képp koo xam ne rëy ngaa ñaan yàlla yàlla tëkku na la nee na ak rëy moo la jàpp waaye ëllëg boo ca deewee te tuuboo di nga dugg jahannama te dinaa la toroxal sanga bu tedde ba sallallahu alayhi wa sallam si xadiisu Nu'man ibnu al-Bashir mu wax ne inna adduaa huwa al ibada ci beneen riwaaye adduaau huwa al ibada summa qaraa qawlahu taala wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama daaxirin nee ne moom sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci boppam moo di ak jaamu yàlla ku koy def moo xam gis nga li ngay ñaan wala gisoo li ngay ñaan yaa ngi ci jaamu yàlla yàlla dalay yool ca la ngay def nee ne nag ba mu ko waxee ba noppi moom sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng aaya bii ñu jàng léegi kon loolu mooy li ñu ci wax ñaan itam képp koo koo xam ne yaa ngi ko bàyyi yàlla wàccee na meram ci yow sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man lam yasalillaha yaxdaf alayhi képp koo xam ne doo ñaan yàlla yàlla day wàccee meram ci yow te ñaan nag moo gën a tedd sa suñu borom subhanahu wa taala dañ nga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam wax na ne akramu cheyin inda allahi addua aw ala allahi addua nee na li gën a tedd ci yàlla ci xeeti jaamu yàlla yëpp mooy dua moo dig ñaan ndax xeeti jaamu yàlla yëpp anami ñaan la kii ñaan la bu ñu wooyee dua ibaada ñaanu jaamu la di duwaa u masala ñaan ak tàllal say loxo di di di di ci yàlla li nga soxla kazalika naka noonu ñaan mooy e, melokaanu yonente yi ak gaañu baax ñi mbokki jullit ñi dinañ ci tànn ab yonent boo xamee ni ba mu nekkee ci ay njàqare yàlla suñu boroom bala fàttaliku te néew na fa mu nekkoon ku fa nekk di dund waxuma laa di fàttaliku suñu boroom subhanahu wa taala ngir xamal la ci anam yi nga xamee ne ci la yonente yi doon dund ci xeeti ñaan bu ñu nekkee ci xéewal ñu ngi ñaan bu ñu nekkee ci sopaan ñu ngi ñaan waaye kañ cay tànn mbiram leer lool mooy yont yàlla yunus alayhi salaatu wassalaam nga xam ne mbiram tiisoon na lool moom la suñu borom ba subhanahu wa taala di wax ci eh, saaru eh, eh, ca aaya ba ci suratul anbiya wa zannuuni iz zahaba muxaadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من فاستجبنا له waaw fastajabnaa la ñu nangu ko zannuuni mooy boroom wa mooy yont yàlla yunus alayhi salaatu wasalaam iz zahaba muxaadiban ba nga xamee ne xeet wa weddi nañ ko mu dem ànd ak meram merale lool sama borom ba ne mu jàppe ne ñun day mënuñ koo xatal ci suuf maanaam suuf ak yàlla yaatu na fu mu fi dem mën na faa waaye dem na ci lu dul ndigal waaw ba ko sama borom ba xatalee ba dugal ko ca biiru jën wa dama tënk ci tënk jën wa wan na ka mu nekk ci njaxare yu mel noonu ak tiis wu mel noonu kamu fa woo yàlla la yàlla suñu borom moo ko fa uyu moom nee ne ma uyu ka teggil ka njaxare ya nga xam ne moom la nekkoon waaw fastajabnaa lahu wa najjaynaahu min alxam nee ne wa kazalika nunjil muminin nit ki noonu nag yamul ci yunus kese yéen jullit ñi saa yu ngeen nekkee ci ay xat-xat ak i njàqare ak i tiis comme niñ ci nekke nii na nga fàttaliku ne loola du jagleb yonent yàlla yunus de du pour yonente yi de déedéet képp koo xam ne jullit nga nekk ci ay xat-xat lu xat-xat ba rëy rëy rëy lu mu jafe-jafe-jafe yàlla nee ne ubbil naa la bu fekkee ne sabbaa nga ma lu ma tuub nga ma sabbaam di ma tudd nee ne kazalika naka noonu ma ko defeek yunus nun jil muminin moo tax sanga bu tedda ba sallallahu alayhi wa sallam ci hadis saad ibne abi waqaas mu ne kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ala uxbirukum bi cheyin ida nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'i dunya daa bihi furrija anhu fa qiila lahu bala ya rasul allah qaala duaau dinnuun laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin nee ne bés ñu ngi toog ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu ne ndax duma leen xibaare duma leen xibaare mbaa ma waxtaane leen loo xam ne kenn ci yéen muy góor muy jigéen ndax baatab góor la tudda waaye yóbbaale na ñépp képp ku di jullit bu tolloo ci ay njàqare ak i nattu ak i balaa ak i xat-xat bu ñaanee ñaan googu muy dëgg ci moom dajale sarti ñaan ya bu boobaa yàlla dina ko ci génne dina wuññi njàqareem jooju dina ko génne ñu nekk ko ah wax ñu ko yaa rasulallahi mu ne duaa u zinnuun ñaan ak boroom jën wa mooy lan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin nee ne loolu ku nekk ci ay njàqare bu ñuy ñaan ngeen di ko sàlloo la mu doon wax ca biirab jën ba ba yàlla génne ko ci yéen bu ngeen koy wax insha allahu matal sarte ya yàlla xalset na leen cee génn ci beneen riwaaye nag mu ne fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat illa stajaaba allahu duaahu nee na ñaan googu day képp koo xam ne jullit nga nekk ci ay xat-xat doo ko ñaan mukk lu dul ne yàlla dina la mas a xettali nga génn ci musiba moom moom sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ibnu abbas radiallahu anhu wax na ne kaana nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam yad'u inda alkarbi yaqul kaana yaqulu inda alkarbi laa ilaha illa allahu alazimu alxalimu laa ilaha illa allahu rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim nee na yonentab yàlla boobu sallallahu alayhi wa sallam démba day bu masaa nekk ci ay njàqare kon nga xam ne yonente yi dañuy nekk ci njàqare dañuy nekk ci naqar dañuy nekk ci tiis nee na bu masaa nekk ci ay njàqare day daan na wax laa ilaha illa allahu alazimu alxalimu laa ilaha illa allahu rabbu samawati wal ardi wa rabbul arshil karim amul kenn mbaal lenn lu ñuy jaamu lu dul yàlla moom mi nga xam ne moo di aji màgg di aji lewet amul kenn mbaa lenn lu ñuy jaamu lu dul yàlla te jaamu ko di dëgg nee ne mooy baroom asamaan di baroom suuf di baroom aras ju tedd ji mu ne looloo daañ nañu dégg bu tolloo ci ay tiis ak i xat-xat mu di ko wax moom sallallahu alayhi wa daan na wax tam ci xadiisab anas muy wax ne allahumma inni auzuka min auzu bika min albarasi waljunuuni waljuzaami wa min sayyi asqaam nee na dégg naa ko itam muy ñaan yàlla naan kaan maa muslu ci yow yàlla nag ma musal min albarasi ci ak ram waljunuuni ak saddum jinne waljuzaami ak ngaana nee na min sayyi asqaam ak mbooleem feebar yi nga xam ne feebar yu mag la yuy lore feebar la yoo xamee ne day faagaagal loolu daan na ci bari lu mu kii nag bu mu ñëwee di alayhi salaatu wasalaam daan na dénkaane ñuy wax ci njàqare yooyu yaa rabbana yaa daafiul balaaya ya rabbana yaa daafiul balaaya yaa rabbana yaa daafiul balaaya bu boobaa boo ca tolloo di ko wax bu boobaa sama borom ba subhaanahu wa taala xalset na laa xettali téeméeri kon boo koy wax téeméeri yoon sang bu tedd bi Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam dolli na ci lool kon nag mbokki jullit ñi balaa ak ñaan lan mooy noonab ñaan noonab ñaan moo di balaa moo tax ibnul qayim wax ne adduaau min anfail adwiya wa huwa aduwal balaa nee na ñaan day bokk na ci saafara yi gën a ëpp njariñ te moom mooy noonab balaa mu ne yadfauhu yadfauhu wa yamnau nuzula nee na yadfauhu wa yuaalijo wa yamnau nuzulahu wa yarfauhu aw yuxafifuhu ida nazal wa huwa silaahu lmumin nee na ñaan day mooy noona balaa nee na da koy puus nee day béréeg balaa di xeex ak moom bu balaa di ñëw wala bu wàccee ba noppi ñaan day xeex ak moom di béré ak moom bul jële ko fi day tere it ñaan di wàcc te itam nee moom ñaan ci boppam bu balaa bi wàccee ba dal jaam bi itam mën naa euh, oyofal li nga xam ne moo dal ci kawam ci xeeti balaa ba nga xam ne dégaaye fa mu waroon àgg du fa àgg kon nag te moom mooy ngànnaayal jullit ñaan mooy ngànnaayal jullit bi ndax sallallahu alayhi wa sallam am na lu mu wax waaye balaa booba moom mu dal di ca teg ne wali duaay aw walahu ma al balaayi salaasu maqaamaat ahaduha an yakuna aqwa min al balaayi fa yatbaahu wa saani an yakuna adafa min al balaa fa yaqwa alayhi fa yusaabu bihi al abdu ولكن قد يخفف وإن كان ضعيفا ثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه nee ne balaa ak ñaan nii la léeg-léeg ñaan gi mooy ëpp doole balaa bi ñaan gi mën naa ëpp doole balaa bi dal di koy puus mu dellu mu ne léeg-léeg balaa bi day ëpp doole ñaan gi xam ngeen ne balaa bi fi nekk boroom doole waaw day am doole nee ne moo ëpp doole balaa bi moo ba ëpp doole ñaan bi maanaam ñaan bi moo gën a néew doole balaa bi mu ne nag balaa bi ëpp ka doole dal di dal jaam bi waaye day continuer di ñaan ndax ñaan googu ci boppam dina wàññi dina woyofal ci moom te may xolob muñ te dina woyofal ci moom balaa boobu dina wàññi fa mu waroon a àgg ci ay musiba ak ay balaa ak ay ndog dana ko wàññi lool aw yu xafifu ida nasa sanga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa hadisu Aïsa laa yuxni xadarun min qadar والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء اللي ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلي الجاني إلى يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم نيني dogal bi yàlla dogal ci ab jaam mënul jaaf li mu ne diw nangam lii dina ko dal feebar bii dina ko dal loolu mënula jaaf mu ne ñaan nag dina jariñ ci loo xam ne wàcc na ba noppi balaa bu wàcc ba noppi kon bii fi nekk ak balaa boo xam ne wàcceegul mu ne nag ak ñaan ak balaa wala buy wàcc ñaan gi da koy dogale ñoom ñaar ñuy puusante di puusante bu ñu yamee doole ba yowmal xiyam kon gis nga dooley ñaan na mu tol moo tax nanu di sàlloo di ñaan mu ne laa yardul qadara illa du'a nee na dogal dara mënu kaa delloo lu dul ak ñaan kon ñaan foor na yàlla dogal ba noppi leneen delloo ko leneen dellu ko laa yardul qadara illa duaa wala yazidu fi l umri illa al bir waaw mu ne wa inna rajula la yuxramu risq bi zanbi zanbi yusibuhu nee ne dogal lenn moo koy delloo moo di ak ñaan moo xam dogal bu wàcc la wala buy ñëw nee ne nag fan dara du ci dolleeku lu dul ak mbaax moo koy dolli nit ki di dox lu baax di dox mbokk di jokkale nee na loolu mën naa yokk ci aw fanam kazalika na ko noonu nee ne loolu nag ñun war nañ kaa xam yàlla dina xañ nit ki wërsëg ngir benn bàkkaar bu mu def wërsëg bu jëmoon ci moom mu dem bay egsi nga naan ah man daal lu ma lu ma yóotee mu yàqu di dem ci jibar mu di la ràngati waaw di la wax de dañ la liggéey wala dañ la def nangam dañ la def naa bu demee bay sotti rek dal di yàqu fàttala toogal nga càmbar sa bopp seet ba xam lan moo ko indi nga vérifier sa bopp nee ne ndax sang bu tedd bi nee ne yàlla dina lay xëñ wërsëg bu nekk ci sa loxo ngir sa bàkkaar wala wërsëg bu doon ñëw ci yow wërsëg bu yaatu wu doon ñëw ci yow nga dem jaaloo wala nga def lu bon yàlla delloo wërsëg kon nag loolu jar naa di moytu bokki jullit ñi kon nañu xam ne sunu ñaan gi ab dogal la ci dogal yi comme ni ko imaam Xasaali waxee nee na wa inna min alqadaai raddul balaa'i bi du'a bokk na ci dogali yàlla ñu delloo balaa ci ak ñax ak ñaan ab dogal raddul balaa'i wa du'a yanfa'u waaw nee ne sababun li raddil balaa wa stijlaabi rahma nee ne ñaan sabab la ngir delloo balaa ak xëcc yërmande kon nag mbokki jullit ñi bu ñu tàyyi mukk nañu continuer ndax kat li ñuy wax samartu du'a muy meññetu ñaan yàlla moo ko gàddul boppam sang bi tedd tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne maa min abdin yadu llaha bi duaayin illa stujiba la yadu bi duaayin illa stujiba amul kenn benn jaam boo xam ne sarti ñaan daje na ci ñoom muy ñaan yàlla nga xam ne lekkalu teey ca ak euh, bàyyi bon ak waxtu ya nga xamee ne mooy waxtu yi gën ak yu bari ci yi nga xamee ne mooy tax yàlla di nangu ak ñaan nee jaam bi daal du ñaan yàlla lu dul dañu koy nangul imma an yuajjila lahu fi dunya aw yuddaxara lahu fi l axira aw yukaffara anhu min zunubihi aha bi qadri du'a ci beneen riwaaya yusrafa anhu min assuui mislaha nee ne yàlla day nangu ñaan benn mu nangu ñaan gi ni nga ko ñaane mu amee noonu boog nee ñaan gi yàlla jël ka kaffaaral la ci say bàkkaar bañ laa nangul la nga doon ñaan ci beneen riwaaya mu dindil la ci ay musiba ak ay ay lor mu wax ne ba dey ba tey ñaan googu wala mu dencal la ko àllaaxira defal la ko aw yiw mu mën laa jariñ nee na nag maalam yadu bismin feet waa ji ñaanul bàkkaar aw xatiati rahim la muy ñaan bàkkaar nekku ci luy dog ak mbokk nekku ci nee nag ci moom sallallahu alayhi wa sallam nee ne jaam bi day feek aw aw yastaajil nee ne mbaa muy yàkkamti qiila ya rasulullah wa kayfa yastaajil qaala daaw yaqulu daawtu wa lam yustajab li nee ne benn ñaan gi bu fekkee ne bàkkaar amu ci luy dog ak bokk nekku ci wala mu yàkkamti ñun ka naka lay yàkkamtee mooy mu ne ah man de ñaan naa kenn nangulu ma ñaan naa kenn nangulu ma yustajaabu li ahadikum maa lam yaajal yaqulu daawtu falam yustajab bi ñun nag loolu mooy suñu problème ñaan nañu ci bopp bi gis nañu ne mu ngi yokk ñun ñëpp daw na ndax nanguluñ ñu loolu nun noonu lañ ko jàppe ñun kon nañu xam ne yàlla day nangu ak ñaan moo xam gis nga li ngay ñaan wala gisoo li ngay ñaan nañ sàlloog loolu takkoo ak loolu te suñu borom bakat wax na ne la muy la may tëje nii ngir fàttali rek ndax fi mu nekk dama bëgg ñun ñëpp ñu continuer di ñaan rek te bañ a tàyyi te bañ naan mu ngi yokkoo mu ngi déedéet nañu continuer rek di naan incha allahu suñu borom ba ñun xal set naa teggi lépp bu nangoo suñuy ñaan waaye nañu tënku ci li nga xam ne mooy sarti ñaan ya te wax naa leen que li tax ma tànn ca sart bu fés a fés a fés muy jëfandikoo lu dagan loolu dégg nga seydina limaam alayhi salaatu wasalaam li mu ci wax summa zakara rajula yutilu safar ashata akbar yaqulu ah ya rabbi ya rabbi wa matamuhu haram wa mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa xusiya bil xaraam fa anna yustajaabu li daalik waxoon na ko démb nee na ki nga xamee ne mu ngi guddal ëpp tukki ba salfaañoo lool fagga lool di tàllal loxoom naan yaa rabbi yaa rabbi nee ne la muy lekk dafa araam la naan dafa aram la muy sol dafa araam nee na kooku naka la ñuy nangoo ak ñaanam ëllëg kooku du neex a nangu ñaan kon nag mbokki jullit ñi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ne inna allaha yastaxi ida rafaa arrajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran xaaibatayn nee ne maa ngi leen di xamal ne nag yàlla ku am kersa la rus na ab jaamam tàllal ka ay loxoom di ko ñaan mu di ko delloo muy sooy kon nag bu nangoo ñaan gi benn mu jox la jëmmi ñaan gi wala boog mu kafaara la ci ciy bàkkaar wala boog mu dàqal la ci say musiba wala mu dencal la ka àllaaxira kon kii ñaan pertul benn yoon ibnu jurayjin wax na ba Muusa ñaanee yàlla ñaan yàlla ga mu nga ca ibnu kathir ñaanee firawna ñaan yàlla ga moom ci boppam wax na ne ah loola day diggante ñaan gaat muy dal firawna te yàlla ne na xat ujibat dawatukuma fastaqima wala tattabi an sabila lazina la kon nee na ñaan googa day ginnaaw ñeen fukki at lay doo a am ñu ne ginnaaw ñeen fukki fan te yàlla moo xam kon li may tëje mooy waxi suñu borom ba subhanahu wa taala qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aa'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizaama waxal leen waxal ma gaa ñi nee leen man bu ma leen woon faale bu dul woon ñaan nga li ngeen may ñaan kon nag yàlla du faale bu fekkee ne du ñu ko ñaan kon nañu continuer ko fi jullit yi di ñaan bu yàlla nangoo insha allah suñu ñaan man naa feeñal li nga xamee ne mooy faj jàngoro ji ñu tàggat moom bi idnillahi taala yal nañu yàlla nangul te jéggal ñu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya rabbi allah ya hayyu ya qayyum ya badi'u samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram yal na yàlla sa borom ba teggi nag ñu teggi fii